Eh, man xam nga may mun a lan laa gis. mais bi am na loo loo xam loo loo. ñu waxaaral rek am na kaamoo bi fii gis nga man. Ah. Sénégal fi mu toll nii dama dakkurul ci rek ni dal dama bëgg a kii rek dama bëgg doon président nii nangam ak nangam man fi mu toll nii sama candidature. waaw man am na nu muy demee boo muytuwul damay doon candidat ah, waxoon naa la ko. ah, ah oui candidat présidentiel 2024. bien sûr. ak <laughs> pourquoi pas pourquoi pas en coalition au PVD. on est parti de la vérité mais dama dama kii dafa damaa am loo xamante ne bii man li nekk sama bopp mooy man Sénégal jàpp ma ni dafa am ku war a jóg rek dal ni daal man président laa bëgg a doon man li ma bëgg mooy président boo xamante ni bii réew mee ko tax a jóg daf koy def ni jaamu yàlla xam nga ko tedd ki dafa waxoon ne xadd anqanil yow ma xubbul ahli wal watan handar ki maa li zawil anwaar yi wal fitan ca ba muy soog a door daf ni moom dara gàllankooru ko lu dul bëgg réewam ak ñooñu réewam ba eggagul fi mu bëggee egg ak yu demee noonu donc fi mu toll nii kiy doon président na fekk na fàtte boppam bu mu ambitieux. Hmm. waaw na bëgg contribuer ci réewam parce que bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk liggéeyal sa réew ci jaamu yàlla la bokk. Hmm? man ku mel noonu laa bëgg mu jiite waaye koo xamante ne bii pour jiite doon chef rek mataari dar la. Euh, kii ngay def sa conseil de déedéet man daal